thank you basumo basumo mbare suko non ko abide wiba famale dia sénégal sama réew sénégal sama réew un pays que la révolution peut changer et non une rénovation et non une rénovation. Et on commence à déshabiller la République et les institutions, même si les hommes qui l'incarnent ne sont pas à la hauteur, n'ont pas une sagesse déterminante, même si les hommes qui l'incarnent sont mauvais, mais nous sommes en train de déshabiller la République. C'est pour ça, avant de commencer le live là, je lance un appel solennel à tous. C'est ce qui font des live, la presse, tous ceux ceux qui sont fâchés. Je lance un appel à tout le monde. On m'appelle de partout, on me lance des messages de partout. Sur les lives de Kaisof, il y a un jeune militaire, je ne sais pas ce qui. Mais il fait des témoignages explosifs. Explosifs, des témoignages où je pense que le commun moi en tant qu'ancien en tant que responsable le commun le commun de nos mamans là le commun de nos sœurs le commun des ne vont pas comprendre et ne vont pas admettre certaines choses sur leur cœur les crimes ça doit rester militaire un crime ne m'a jamais dérangé Jamais de la vie, jamais. On a tué celui-là, j'ai des problèmes. Non, non, non. Parce qu'il y a Philbert Sambou, il y a Didier Badi. Quand nous keneen kuñ fi rey njëkkeew fi algorithme moo tax ngeen yëg ko li Abdou Diouf rey ba tey deewagul ci kii calculer la ñooñu ay vingt ans lañ toog ki toog vingt ans ak en deux ans ki nga xam ne rey na deux cent et poussière kon ki rey vingt ans ñaata la rey lii moo fi yàgg am sacrifice yi veille élection buñ ko defee yéen ñëpp yuuxu pourtant yéen ñëppay dem juma jàppee seen bopp ay jullit yéen ñëppay dem juma jàppee seen bopp ay jullit Sénégal nag révolution moo koy defar révolution moo koy faj te alhamdulillahi rabbil alamin heureusement ba bi Sëriñ Bamba donc moo fi réussir révolution biir Sénégal dem dellu si sëñ Bamba kese moo fi réussir révolution mu jaro ko mu demee ko résidence surveillé ba sàngoo suuf te changé wul heureusement sëñ Bamba donc duma weesu dinaa jërëjëfe Sëriñ Tuuba moom donc réussir révolution am Sénégal ñëw fekk la ñu nodd mën leen ay yéen waay a ah waay yéen waay kañ la fi waa màkka ñëw waay ah kañ ngeen am ganu màkka waay ci la nodd arab di ko muusal ñeew ñeew meew saa nodd comme sa maam sëñ bamba ko fi indi ñeme julli comme yow africain sëñ bamba ñeme taxaw nodd nodd bi ñu nodd nodd tuubaa noonu fan nga koy dégg feneen loolooy révolution dafa fekk araab imposé leen rythme bu muy doxee sëñ Bamba ñëw ni leen du ko doxee tubaab imposé leen rythme sëñ Bamba ni du ko doxee mais comment ba tey ñuy dem ba ci révolution bu ñëwee bu buntu révolution ñu ne noonu nañu rénové nañu rénové xam nga ban waxu Sénégal moo gën bon ci àdduna jàmm gën ay duñu mos a defar mi tant ñu ngi naan jàmm gën ay réew mi du mos a jag ndax révolution mooy defar réew jàmm gën ay danga koy waxante gumba goo xam ne toogagul si xeer nga nokk ko xeer ne ko kaa ñu sànnante xeer ñu ngi déshabiller république bi te si révolution kese lañu war a dem tey yëg ngeen lu xew armée yëpp man yu bëri su may live je ne vous le cache question ragal bañ wax lépp du ragal message de responsabilité sens de responsabilité devoir d'exercer sa serment ba nga prêté woon sens de responsabilité day tax nit day dem ba ngay wax ñenn ñi naan non du wax lépp du moom mos wax lépp. man républicain la je ne vais jamais sortir certaines choses sur la place publique devant les civils jamais ndax civil daa bëri sentiment vous avez trop d' émotion te man nekkuma ci ay émotion nekkuma ci ay yërmande nekkuma ci loolu booy sept marins yi ñu rey c' est très normal ñu rey loolu ils ont fui leur nez man gis nga booy ndaw ndawaan yi boo gisee ñu ne rey nañu nit ñoom ñëpp yuuxu mais tey Moussa Fall ñoom bantu tour lañ ko jox dans l'armée ñoom ñii di coow yëpp lan moo tax ay militaire daw yaa combien de yi daw huit cent militaires daw pour sauver seen bakkan bu ay accident gendarmerie ay yet naa daw ay commandant daw booy loo leen fii xaar pour dem ni Nicaragua yéen it ba pare ñu ne xale yi bu leen daw dem Nicaragua yéen amu leen looleen leen lekk amu leen loo leen naan ñu ne leen bu leen génn dëkk bi ñii am lu ñuy lekk am salaire am lépp sol toni mënoon régler réew mi ñoom ñuy daw génn dëkk bi ba pare ñu ne waa dëkk bi des leen boo leen voté da ngeen di gañe ci ay gendarme yiy daw ak ay policier wa kii man nag li ma Sidi Lamine Niass waxoon mu gëm ko te bokk ci ab parti révolutionnaire muy MFDC bu Kourouma Sagna nga xam ne depuis quatre-vingt-trois quarante ans d'existence teggiwul tànkam ça c'est un révolutionnaire ñun duñu ay politicien man j'ai du mal su ma nekkee ci politique man su ma nekkee ci politique j'ai du mal xam nga lan laa am ban mal varia bi mu leen naan politique c'est pluriel mais ñu am candidat yu bëri pa ay BBB mais ay prime Sonko daa waroon dem man samay wax du ma ko nëbbaat Sonko daa waroon dem maa ko fi waxoon ne Sonko day bokk Guy Marius Sagna Bassirou Diomaye ñun nañu fexe ba am cinq candidats pour ñu jël un deux trois ñun anti système jël un deux ñaar ñu ñëw def naa fi ñaatu combinaison ba boole si waa demaat leen samay live ba ne leen bu ñu bokkee PUR beneen combinaison ma ñëw boole si Tahirou Sarr beneen bi ma ñëw boole ci Cheikh Omar Diagne ne leen ñun ñooñu ñoo war a nekk un deux trois mais képp ku bokk ci système bi warul sax ñëw deuxième mais boobu man maay woon ci révolution gëm ne Sonko lu mu politique politique ci révolution li ñuy teg réew mi pour changer ko révolution te révolution moo gën rénovation commencé ngeen rénover bu yàgg rénovation rénovation defarul réew bu doon day defar réew du yàq Gàmbi Gàmbi révolution amu fa de Macky Sall moo ko nungu rénové ko moo tax mu gën a jagati rénovation mënta régler dara en conséquence de cause xam fi ma jëm te da seetaan nag ban dem si cappaandaw ga lenn moom mun naa leen ko wax sibili yi xeex bi xam naa ne bokkutu leen ci civil yi xam naa ne dootu leen xeex xeex bi mais les hommes dignes qui gèrent les institutions temps yëpp ñu ngi jël gars yëpp di yóbbu tëj pénitencier yi ñu ngi leen di bëgg a rey gendarme yi ñu ngi leen di bëgg a rey pourtant yéen ñëpp ñaari jabar ngeen yoran ñi ñetti jabar di diisali xuur bu Moussa Fall ne ngeen saw seen tubéy mbaa ngeen doxat boo leen demee seen kër kenn di wax om de tenue boo leen sol lu bële Sénégal boo leen solee lu bële rek xeeb leen seen bopp lieutenant colonel yeeg commandant yeeg yéen ñëpp laay waxal capitaine yeeg commandant yeeg ñëpp y'a plus d'hommes adjudant chef Diallo les hommes de la gendarmerie où êtes-vous foo leen nekk ba benn Moussa Fall bi nga xam yee na ko ancien darman ko ko biir armée mu ngi nii di jiite di rey di dàq di tëj di tëjji kenn sañul wax yéen colonel Balde foo leen nekk yéen Diallo foo leen nekk colonel Ba foo leen nekk qu'est-ce qui se passe pour que ñuy exhiber nii république bi qu'est-ce actuellement qu'est-ce foog ngeen wax peuple bi lan moo xew bés boo leen defee loo leen warul def ñu def li ñu war a def kullu fadrin officier faatu yéen yéen a nekk ci dem élection man maa ngi nekk ci xeex ak Macky Sall rey ndeyam bu ñu réorganiser ñu réorganiser tout Ousmane Sonko ñoo bokk doon candidat man fa laa toll te kenn du ma fa génne du Sonko du yéen kenn moo fi génne ndax xam naa ne boo leen demee vote ba voté mu la ba jootam ci ay fen li ñuy jiite waat réew mi te man bëggatuma ànd ak kuy fen loolu rek sama cat moo tax ma ne leen commencement nekkuma ci politique ci révolution laa nekk point final je suis dans une révolution mënuma bokk ak yéen objectif ak mënuma bokk ak yéen philosophie ak vision Sonko bi leen na ñoom du ñu bokk ñoom ñëpp a ma gëmloo ne Sonko day bokk par force wala réew mi kenn du fi dem campagne. waaw waaw mënuñu ne fenn démb ku bokkul si ñun rek bokkoo ci fenn démb déedéet vaar yi ñëpp lay concerné fu mu toll nii en commençant par Sonko descente ba ñëpp foog ñëpp vaar gars yi nag yi xol yi foog ñu bës ko te nangu te xam ne yéen a dugg ci politique. foog ngeen bés ndeyu xool yi mu ñuy neex mu leen di naqari foog bés xol man gawma affaire yu stratégie non je ne crois pas stratégie si man fen la point sinon du ñu sacrifier doomu jàmbur yi point c'est simple comme bonjour day am ñu may wax naan ma non gars yaa ngi vaar mais si dañuy vaar comme ñun ni ñuy vaaree point fii ku fi teg loo waral teg ñu vaar la point kon vaar c'est normal point bàyyi leen ñu vaar ñëpp. yéen ngeen focus si ndax élection dina amam du am gëmutum ko man personnellement gëmutuma ne élection day am jeune ne crois ndax bi mu leen woon xeex leen fexe dem ba le 25 février loo leen moo waxoon non gañe nañ ba pare ba yegg fa doog a gañe foo yeggagul munoo gañe gat ba dernier jour élection gëm naa ne élection du am boo leen gañee ñu def comme Gabon tam diw moo gañe ngeen ne ñoxor gendarmerie jël seen armée jël ñu dawal un mois deux mois trois mois suñu armée jël su boobaa Sénégal di ngeen fi bëggaat jàmm mu tëleen gis nga boo leen yaakaaree ne bu ñu yàqee Macky Sall bu yàqee deux mille vingt quatre bi le vingt cinq février gis nga xam nga xeexuñu ba heure bi boo leen yaakaaree ne bu Macky Sall yàqee réew mi day yem benn at da ngeen seen bopp. réew bu xasee tàkk au minimum on va faire dix ans dans ce tàkk-tàkk là dans le dóorante. Sénégal nag tant que defuñu fi li xewoon Côte d'Ivoire wala xew a Sierra Leone dëkk bi du réglé man loolu laa gëm. tant que Théo Macky Sall rey ko ba ñëpp gis deretam ñu def ko comme Robert sànni ko ci tali bi man gaw ma ne Sénégal day baax je ne crois pas à ça. Amadou Ba mi nekk un Guinéen waruñoo mën a jiite c'est que man lu ma mënul concevoir su ma gisee ñuy jàppale un Guinéen un étranger pour suñu souveraineté nationale waa léegi nous et notre souveraineté on a fait quoi. Sénégalais est-ce que yéen yaa ngi ni réfléchir et suñu souveraineté nationale soo waxee ñu ne la waroo wax te nag foog ma wax Karim Wade man maa ko xeex ba mu jóge fi te moom baayam sénégalais la yaayam mooy tubaab Amadou Ba du ci ndey du ci bàyyi fu baayam toj Sénégal fu baayam nekkoon Sénégal fan est-ce que baayam daan na fay impôt Sénégal fan gars yi nag mun ñu nag doomu baadoola bu mel ne Macky Sall ñëw jiitu ñu beneen doomu fàqir ñëwaat bëgg ñu jiit dëkk bi day gën a surux kii ci sàcc la amee munoo ñëw ay doomi sàcc kati jur ay doomi sàcc kati jabur jàmbur bëgg yore ndey suñu république bi Sénégal baax mënta nekk je regrette ay doomi sàcc du ñu jiite réew mi ay doomi sàcc du ñu jiite réew mi man nag ci révolution laa nekkoon heureusement bi ñu yàqee sama carte de vote de heureusement man bi ñu yàqee sama carte de vote ne mu Ziguinchor ngay vote ji heureusement bi ñu ko yàqee sinon sama carte dama koy taal jëppét mu tàkk ma toog di leen déglu ak seen rénovation parce que man je ne vais plus rénover le Sénégal da ngay def comme Mali pour defar réew foog nga toj constitution bi <laughs> loolooy révolution foog nga jël réew mi tas constitution bi d' abord gis nga lépp luy constitution day charte réew mi da nga koy tas d' abord tas tas lépp lu fi tubaab bàyyi woon charte yi fi tubaab bàyyi woon comme ni may def charte le les quatorze chartes nga supprimer ndayam d' abord pour mu leer ñu ne ñun ñooy gérer suñuy ressources d' abord je suis pour l'armée je resterai avec mes frères militaires Je serai pour les militaires qui sont au dehors, qui fi fii la Sénégal. On a un nombre très important gars yi nombre bi ñu yor ci biti nii buñ ko centraliser woon huit cent yi jot a daw yi ma xam man huit cent yi jot a génn bu ci six cent desoon jël seeni arm ay M16 bii heure waxatuñu wax ci bii heure bu huit cent personnes rek xeexoon bii heure waxatuñu wax ci. y a des adjudants des lieutenants des commandant des colonels ñëpp a daw ndax lan Moussa Fall Moussa Fall benn nit benn nit benn nit benn nit ngeen koy daw te ngeen sol tenue bëgg na ñetti jabar ngeen am da ngeen di tayam jabar yëpp ba pare dugg seen kër yi doon ay commandant di yuuxu xale yi seen doom yi di leen ragal ngeen di lox te doo leen duggee bureau bi Moussa Fall di leen saw ale dem leen laajte kullu fadrin ku mos nekk suñu supérieur ndax mosuma saaga seen rey en ah, commençant par Jean-Michel Sarr dem leen laajte leen ñoom capitaine Sarr dem leen laajte man boo yéex may saaga sa ndey boo yéex may daggal naa sa ndey si automatique koo bu ñoom procureur gay yi ma jot a recevoir laa jël buy yéex moom xoola nee naa la waa léegi katal ndeyam lan la woon ñu ñuy def ma tey yaa def lii katal ndeyam laa la siy tegal te xam naa ne waaw wala déet danga may nokk ci kaso bi donc je l'assume ñu moo tax yu bëri du ma nangu dugg ci ay clan wante groupe ndax man du ma simmi sama réew maa ngi ni MFDC laa bokk mais ci aile politique bi ci biir armée bi su ma neexoon tey ma wax mais du ma mun a fréquenter armée sénégalaise ba pare dugg bokk armée bële ma bàyyi nii ñi exhiber réew mi ndax lan dañu mere Macky Sall waa léegi bu Macky Sall xëyee gedd nag ne bokkatul si dara léegi jël leen seen réew ñun naka la ñuy def pour arranger suñu réew militaires yooyu ñan ñoo leen rey gendarme yi ñan ñoo leen rey ñooñu léegi naka lañ leen di def est-ce que dañuy jàpp Macky Sall rek ne way Macky Sall moo leen rey lu tant ñu ngi def loolu reykat yaa fi ba tey ah, ñu reyoon ñoom ñooy continuer di rey nii ah Moussa Fall brigade bi du léegi de bi muy nekk yët naa la 98 xaw ma 96 brigade Moussa Fall bi léegi bi muy nekk yët naa la def na plus de vingt ans vingt cinq ans avec ses hommes nay leer moo tax gars yi ñemew ñu ko xam nañu bu baax lu may wax Moussa Fall gën a doon seen day militaire moo tax ñoom ñuy daw coolee fi nekk rek Moussa papa papa bu bëri bépp xam nañ ko ku ci dajeeg moom mu dégg seen day moo leen gën doon militaire ñoom ñëpp xamante nañ suñu biir coolee fi ne kooku nag lan moo ko mun génnee tey ci moom mu ne tey di décider lii Macky Sall du fi jóge ngeen toog naan ko non dañuy carte non nañu wut ay prime ay Sonko prime non Bassirou Diomaye Faye prime civil yi lu ma leer daa leen wax Macky Sall deful ak yéen passation de service bu dee Macky bi ma xamoon 2009 bu dee Macky bu Youssou Touré ak ñoom Amath Suzanne Camara bu dee Macky Sall boobu moo fi nekk nii bu vingt 2024 bii bu dee Macky Sall alpulaar buy màtt muy dagg bu dee man ki ma xam depuis ay 1992 laa xam Macky mii muy ñëw di sol ay dàll yu pënn ñàkk tooy xeb la doon def xeeñ xunn da doon ñaq xeen ñaq grave kañ chemise yi boo ko daan jege ni da am problème boobu est-ce que xam na Marème Faye boobu laa xam kuy Macky Sall ñi doon ñëw fi moo doon fekk yëpp fi ñu Ablaye daan jàngale ñi fa doon jëw ñëpp moom donc moo daan màtt dagg su dee kooku laa xam ni du moom mooy kiy def passation de service nii Bassirou Diomaye Faye nii Amadou Ba du ñoom ñaar ñëpp armée bi nag gendarmerie police moment yi c'est divisé en trois parties parti républicain parti Amadou Ba parti Macky Sall et sa famille maanaam Maïssa Sall Ndiaye daa daam lu mu gérer direct ci Macky Sall ñoom Abdou Meng ak ñooñu reculer nañu ndax encaissé nañu Amadou Ba ba pare. ak comité deux mille à deux mille cinq cent am encaissé nañu Amadou Ba ba pare ñoom ñooy yore campagne am ñeneen ñi nag patriotes yi mooy ñun suñu gendarme yi ñuy fay suñu salaire ñun sénégalais ak suñu policiers yi ñoo ñoo jot a daw ndax amuñu kenn ku leen couvrir ñun civil yi ñoo waroon xeex ñoom ñu jël réew mi ñun civil yi xeexuñu ñu sacrifier Ousmane Sonko sacrifier sacrifier waale suñuy homme de tenue ñun ñoo leen sacrifier ñun ñu attaqué xeex bi ba pare freiné ñun ñoo sacrifier suñu homme de tenue yi daw ak boo yi dem ni Nicaragua ñun yéen ñii di politique yéen a leen sacrifié dëgg moomu sonal de sens du sacrifice mooy devoir d'acceptation acceptation que vous les politiques vous avez commis des erreurs de route boo leen xamoon ne jàmm gën ay ngeen di mujjee ñu jàmboon doog ay mais doo ay ba pare bëgg a wuti jàmm même bu dee loolee règle de laar mais tant que demu leen woon vingt cinq février waruñu woon jéema a wut jàmm léegi nag problème baa ngi xam ngeen leen bu ñu reporté élection yi noo leen di xeexee nan ngeen mun xeexee nan nen te newoon naa leen ko bële passé décembre Macky bi muy voté projet de loi yi assemblée nationale ba kañ la ko voté deux mille vingt six deux ans la voté ay projet de loi deux mille dix neuf lu ma leen waxoon deux fois sept lay def muy quatorze ñi naan ma xalifa Sall da koy gagné deux mille vingt quatre ñi naan ma Karim Wade da koy gañu deux mille vingt quatre foofu fàtte woon nañu doomu joolaa bi Ousmane Sonko fàtte woon nañ ko grave bokkul woon sax seeni calcul ak seeni litige moo tax bii pa Ahmed Khalifa Niass ma jàmba jaañ am raison si seen machine à broyer bu Amadou Ba bi nag commencé na jóg de am na machine boo xam boo ko commencé gis ci presse bi ce n'est plus Macky Sall report des élections bi daa am ñuy màtt di ëf dañuy toog su suuf ni ni ñu reporter élection bi toog ci kaw ne nous ne pas d'accord pour le report des élections te man li ma wër ba wër bu ñu reporter élection yi xeex ba réew mi tàkk Amadou Ba dootul bokk élection mukk si àdduna ndax Guinée la bu militaire yi tey jëloon réew mi war organiser waat Amadou Ba du bokk waxuma militaire gabonais yi de waxuma militaire Ali Bongo yi waxuma militaire Erdogan yi waxuma militaire Emmanuel Macron yi déedéet waxuma ñooñ de suñuy militaire ñun senegale Casamance nag la ñu bëggoon déstabiliser dëkk bi foofu nag on a dit pour clôturer yéen candidat anti système laay waxal jusqu'au 23 février bu Macky Sall réussir assemblée nationale bi ak justice bi jusqu'au 23 février li ko dalee Saint-Louis ba Tambacounda nga jaaree ko Podor jëm noonu dugg Fuuta jël leen ay risque xool ndax élection bi day yegg wala lu yegg jël leen ay risque dugg fuuta xool ndax élection yi day yegg wala du yegg dangeen ngeen fàtte ak capitaine Dieye doon nañ leen wax xaw ma fan Sabadola amoon na ay terroriste xaw ma fan fan amoon na ay terroriste ministre Birame Faye rek leen rek man comme li ma leen wax rek du ma xam lépp wax lépp mais booy ñu ngi si ginnaaw de booy yaa ngi ñëw wax soo leen buggee ma négocier bàyyi booy xam li ñuy wax bañ a déshabiller la république au cas échéant nag. sama yoon nekku ci lu neex xale yi la ñuy wax lu neex xale yi la ñuy wax man moom sincèrement mënuma simbi république bi kii moo rey kii moo rey parce que homme wax rek kilifa koo wax rek am na ay doom ci biir armée bi même mais Sénégal am na ay doom ci biir armée bi nañuy xeex mais xoolal nañ ko teg ci code politique gars yi suñu réew la gars yi ah Macky Sall yóbbu nañu fu ñu war woon yóbbu secret yi feeñ dafa am yoo xam ne xoola du sax fenn ci réunion boobu boo duggee ci biir am na ay kilifa yoo xam xamuñu ko je défie quiconque généraux de la de l' armée les de la gendarmerie armée fépp ci am ak police ak fépp li booy boobu di génnee ci live Kayz Off nee naa la am na kilifa yoo xam dañ ma woo jooy xeccit ne ma xamuñu woon man leen déedéet lii moo fi xew mais baa leen mu sedd dir ngi rey boppam bu émission bi commencé fu ne la ñuy localiser ba démb kenn ki daf ma mujjee woo ci kaasa woo ma ma décroché ma ne ah yee dañu fagoon yaay wax non non non gars yi man ñàkk avec mon âge du ma def yéen nii li Pape ale Niang ne xam lépp wax lépp baaxul du ci du réew du réew xam lépp wax lépp mënul nekk yaa gis foo laal ñu ne baaxul parce que boo laalee ci vie privée yi si ci combat bi nekkul moom mooy teg suñu président buñ demee ci politique ñoom dañuy génne Ousmane Sonko teg fële léegi foog nga dugg ci dans les vies de te ñun armée li ñu préparé woon ba mer ko ba man ma am yàqiinu ne armée day jël réew man moom dama ci am yàqiin loolu defuma si sax nii bu armée ñàkkee fayda ba jël ñu réew mi Casamance jël indépendance am coow di jeex bu armée ñàkkee fayda ba jëlul réew mi Casamance jël indépendance am ñoom ñoo la ko gën a xam parce que Casamance Casamance ma maye accalmie totale Kourouma Sagna jërëjëf Kourouma Sagna jërëjëf ndax tas nañu sama base jàpp samay booy ma laajte renfort si ñoom jeeju Kourouma Sagna intervenir ba ma xaw ko ci mere papa pap ne mu du ci dal c'est un piège qu'on vous a ma wax wax mu ne ma déedéet Amadou Ba mu ngi fay dem c'est un piège qu'on vous a tendu ma dëgër bopp mu woo faction yëpp ne leen que personne ne bouge que personne ne réagit def lu ko neex ba jàpp nañ ay boy yóbbu kuruma ne leen bu kenn yëngatu ndax ñuy jàppoon keroog ci village bi wax naa leen ko bàyyi nañ leen ay xale yu ndaw sept ans huit ans ñu ne dañ leen fekk ñuy béy yàmba wala kuy béy yàmba sept ans huit ans mën na taal Sénégal MFDC nee na leen ñoom coow li coow li ba le vingt cinq février lu leen neex def leen ci àll bi xeexuñu pour jox leen bunt boo leen di déstabiliser Casamance ne noo dëkk bi foofu mënuñu fa voter c'est mort waa Fuuta yéen nag lay lancé un appel solennel opposants yi fay ñëw ñëwuñu fa pour xeex dañ ñëw pour wax ak yéen boo leen mënee déglu seen programme ngeen déglu bu leen ko mënul tam bu leen génn xeex bu leen génn saaga Moussa Fall et ses ñoom ñooy gérer Fuuta bi yëpp maanaam fuute bi yëpp dafa am nuñ koy encadrer pour les candidats ñaari candidat la ñu tàmmagum yoo xam ne ñoom leer na leen ni duñ topp opposant duñ top pouvoir ñaar ñooñu soo moytuwul naa si ñaar ñooñu daal ñuy mise bi te ñaar ñooñu mënuma wax kii kii du ma ko def bu ko kene xamee na ko wax ñaar ñooñu ci ñoom ñaar kenn bu Macky Sall rëccee assemblée nationale kenn mooy tax élection du am et ça va se faire passer dans le nord du pays bii dagg élection yi ça va se passer dans le nord du pays bu assemblée bi rëccee luy dagg élection yi ça va se passer dans le nord du pays ba pare tam sans jàll pour clôturer si grand Assane Diouf di Baye Fall lii yëpp moo ko fi jiitu kenn du la tëb kenn du la tëb man je te suis depuis bu yàgg bi ngay toog États-Unis je te suis yow yaa ma njëkk décomplexé yow ñu bëri ñun yaa ñu décomplexé boobu voilà yow boog yaa ñu décomplexé ñëw xam ne nit war na mun taxaw bañ doon naa feeq doom comme sénégalais saaga ndey ci live man loolu man yow yaa tax ma sañ ko kooku tam merci ay ñoom tunkara ñi ngay wax ñi yëpp même yow yaa tax ñu fal ko mais na gis nga su ma sañoon grand borom kër nga kilifa nga boo taalatee sa live yenn tuur yi wala yenn nit ñi xoola non yaa leen sut yaa leen mag yaa ngi woon Amérique doo wax wax bu sew américain nga xam naa yow li may fatt moo lay fatte tàmmoo wax bu sew tàmmoo ko américain nga ba tax na dama lay ñaan xoola paasal gars yi parce que gis nga li ngay wax boo waxee une de temps mu am lu am importance deux minutes bu ngay jël pour ñoom grand da ngay yàq sa affaire yëpp sànq maa ngi gisoo gars yi nu ñuy partager sa vidéo xoola Assane Diouf ah sévèrement kii Ahmed Aïdara est-ce que loolu est loolu kese nga wax déedéet grand gis nga man fii laa ni gis nga saa waay lu metti lay daj si suuf ba ci laay fër yi dañ may waxal loo xam ne jigéen daf may yónnee audio bi damay tiit dama naan man mosuma xam kii sañ na ma waxal lii pourtant ñoom tey ñoo fi nekk di saagante ndey mais est-ce que mos nga si dégg ma tontu kenn damay jëkk ñu leen ko ci di waaye déconné tàkk mais doo dégg ma mbëkkante ci kenn directement bu fekkee ku la wax nga gestu grand bu yàggee doo avancé de avance nit boo jiitoo ci dara xoola jéem ko teg si aksi teg ko ci code organiser live yi teg leen ci temps ne leen gars yi fii mooy live bi fii mooy code bi yow yaa nekk senegal ñun ñii di live yëpp yow yaa nekk Sénégal tey war nga ko mën def nga dem association boog boo xam ne boog toog di déggoo di wax entre ñun même bu ñu bokkul idéologie ñu bokk bloc boo xam ne au moins lu ñu merante suñu biir ñun lu ñu merante loo xam suñu biir lañu merante ñu ñëw waxante ko suñu biir loolooy dëgg c'est très important li ma lay wax ni grand Assane Diouf c'est très important li ma lay wax ni bu tontooti Macky Sall sax yow waratoo ko tontu. ndax mu ngi dem tëj na la ba sonn léegi mu ngi dem non bul waxati ci Macky Sall teg ko ci réew mi teg ko ci code fi mu ko tegoon tëb gaa yi yaa leen raw rawuñu la Ousmane Sonko tey lu ko dugal ci Mame Mbaye Niang li ma leen waxoon jour kii bi bi mu ne Mame Mbaye Niang laa ne tak coupé Kër Massar def live ne leen daanu ngeen passif tey lañ ko waroon arrêté non pour ngeen toj nday dëkk bi mu ne man leen personne ne va l'arrêter gaa yi ngi réunion passe passe passe c'est bon c'est bon jox na leen luñ koy arrêté mais c'est pas le moment ndeysaan jour boobu ñëpp a ngi jubilé janvier daaw la woon janvier bii heure la woon giga mika giga bi Bart toogee ci xaw na ko bul fàtte Mame Mbaye Niang mu ne waaye Mame Mbaye rek laa ne wuy sama ndey merde que kilifa day am foo toll dag yi ñooy wax ku daan ñëw sa kër ñëwatu lu mu lay yokk lu mu nit ku la daan wax quatre-vingt-seize bugguma lii du ma def lii tey bu ñëwee ne ko ne la dama koy def lu mu lay yokk lu mu lay wàññi Sonko démb néew fi doon du def lii tey nangu na ko def parce que mu ngi ci politique lu mu lay yokk lu mu lay wàññi grand Assane Diouf kan bi li muy rëy rëy rëy Sadio Mané gañewul de Aliou Cissé gañewul gram yaay gañe de ay deux cent cinquante mais ëppale wuñu équipe yi dara ay góor kese football jigéen footballu fa ay lafañ footballuñ fa ay xet footballuñ fa ay cerveau ñoo fay football ay deux cent cinquante grammes gars yi foog ñu magante ci combat bi li lay wuru suuli gars yi ni ñu bàyyi tontu bi focus si ni ñuy développer réew mi ku ñëw nanga indi solution ci combat bi man solution combat bi c'est simple yéen civil yi reyante leen ba seen élection am ndax xam naa ni métti métti ñun dañuy xeex ñun dañuy xeex ndax Macky Sall du def passation de service kon ñun on va se battre on va combattre yéen nag civil yi lii seen jëf def leen ko sama waxi démb mooy sama waxi tey sama waxi démb mooy sama waxi tey daañu xeex daañu xeex daañu xeex kañ la nag foog yéen civil yi ngeen def seen wareef ba pare wàcc ngeen xeex ba sonn kenn faalew leen justice xeex la ne leen ñëpp xeex la ne léegi nag lan moo leen dese dem leen def si seen ñaq ñaq bi mooy lan vote coté nord nag bu leen fa dem di xeex yéen voté leen rek yàlla ba voté leen xam nga ñu lu ñu leen sant voté leen bu ñu yeggee le vingt cinq février yéen civil yi fexe leen ba génn voté en masse bu ñu yeggul le vingt cinq février bu ñu yeggul le vingt cinq février bu ñuy reyante suñu biir bu fetal yi tàkkee ci biir dëkk bi yéen civil yi tëju leen seen kër falaa doon waxee chaque jour jëndi leen seen denrée de première nécessité bu ñu yeggulee le vingt cinq février Macky Sall ne day yeggali dëkk bi tàkk yéen civil yi tëju leen dem leen dugg ji tëju le cinq février bu Macky Sall taxawee ne moom moo gagné premier tour yéen civil yi tëju leen xeex bi day am foo xam ne su bu fa tolloo dañ koy xeex par force te li ma waxoon démb laay waxaat tey Cheikh Anta woo xam dina doon dëgg ndax Macky Sall si boppam moom mooy provoqué dëgg googu Cheikh Anta Diop du yonent mais yàlla ko yónni ndax ñun ñëpp yàllaa ñu yónni ku nekk mission nga fi ñëw koo gis ci jëmmi doomu adama ruu bu yàlla sàkk pour mission la ruu ñëw fi sans mission ruu ñëw fi sans mission les gars ruu ñëw fi sans mission nous tous nous sommes des missionnaires ku nekk sa mission fu mu yem nga yem réfléchissez encore une fois dëkk bi politiciens yi la magistrats yi institution yi xeex baa ngi bëgg ñaaw lu waaye xamal nit wax ñii toog déwén daaw a waxoon lii maa dugaloon kii ci parti bi maa dugaloon nun sommes pas là-bas gars yi man mii sax ne leen woon Cheikh Tidiane Dieye laay kii Cheikh Tidiane Dieye gis nga dispersion la ñu gars yi commencé dugal nii te man maa ngi koy gis su commentaire yi da ngay gis émission waa parti bëri dañu commencé ñun li ñu doon def man je ne vous le cache dem leen treizième yëpp laa carte cinq euros cinq euros yi amigo transfert ak transfert home bilde hi dem leen laajte waa treizième malien yëpp ñaata laa def si transfert home cinq euros la koo yónnee crédit dafay am moom trois mille francs crédit direct Sénégal fii ngay toll yónnee ko si numéro Sénégal yéen diaspora yéen laay waxal yéen man noonu laa géré woon sama communication combat tey boog foog ma jox leen secret yi man samay élément crédit sax duñ ko jënd crédit duñ ko jënd négatif dem leen treizième laajte carte cinq euros dem leen laajte ñaata carte laay jënd combat allez demande allez soo leen buggee na ma kenn fekk treizième ñu dem si jaaykat par jaaykat carte téléphone la ñuy gagné xoola temps yi da ngay dem si émission xanaa xamoo ne ñoom bu ñuy travailler si algorithme bi sànq maa ngi seetaan émission kooku may bañ a wax Pandoolaan Seck ma gis waa kër Tinubu yi Tinubu Tinubu Tinubu va diriger Tinubu Tinubu gis nga yooyu ñun ñoo ko daan xeex si suuf waaw parce que pourtant ñu ngi cotiser pour ñoom xeex bi yeggul foofu campagne bi campagne digitale la wala xamu leen ne c'est une campagne digitale xeex bi romb na ren avertir naa leen de carte crédit gis nga émission buy daw saagante yi message yi Sonko mooy falu Amadou Ba mooy falu c'est très important parce que sànq seetaan naa émission mu am mille deux cent et quelques fii mais liñ fay bind tinu bu tinu maam man man si mu si demandé ma ne waa man kon c'est les mêmes personnes là ñoom ñoo ñuy saturé ñun bu ñuy live je viens de comprendre gars yi ngi commencé feeñ nag patriotes yi waxoon naa leen ko de Pastef yéen a ne da ngeen xeex noonu yéen a gàddu lépp foog na parti yëpp yéen leen jiital waaw waaw léegi nag combat bi li ma leen waxoon laa leen wax de dootuma ko jël si kenn damay toog di leen déglu ku xeex baax na ku xeexul baax na man li ma war a def dinaa ko jëf mais carte crédit yi xanaa nag yéen kenn ku nekk yéen ñi nekk diaspora ku nekk mën nga xëy jël cinq euros yónnee nit yónnee benn booy patriote crédit mu toog ci émission yi comme il na faut yi ñuy yónnee message boobu wala ñuy participer émission di défendre Ousmane Sonko wala ñuy participer émission di wax si Bassirou Diomaye fay mais temps yi émission yëpp maa ngi leen di wax gars yi Amadou Ba kese la ñuy wax wax naa leen kon je vous avertis bu leen bàyyi gars yi ak wax sa xalaat gis nga bu boo leen fagee ne affaire yi mokk na vous vous trompez leen gars bàyyi gars yi ak wax sa récupérez moi les rajo gis ngeen man beneen xeex laa doon xeex xeex te ki ma doon ki ma doon jàppale si xeex bee ngi si kaso bi jottu ndeyam booy jéeju man sama enseignant joolaa bi moo ma tooñ jéeju rey nga ma billaay wal asri inal insaana laa fi kusri mooy xeex bi niveau bi mu ko yóbbu woon télé yëpp ñu occupé ko sonko sonko ma may on commence à nous ndax lan problème financement Pastef ñëw ne dañ dajale nañ dajale si ñoom xeex bi seen yoon nekk si waaye xeex bi seen yoon nekk si ñun ñi ngeen génne ñu ci xeex bi léegi loolu leen bëgg ñu def waaye léegi man Tunkara laay woo Tunkara comme yow la waa Pastef def chef comme Idrissa Seck ni ko Macky Sall defee chef de l'opposition yow yaay chef des lifeurs te man nag dëgg neex yàlla de la nga def États-Unis ñun de France defuñu ko te li nga ci dépensé yëpp xam naa ko dëgg rek a neex yàlla gaa yi loo leen saaga saaga Tounkara loo leen ko mënti wax li mu def États-Unis nag moox ñëpp ko defandoo mais gars yi yéen jàpp leen si gars yi gars yi ñu ngi ñi ci combat bi côté communication maa ngi waxaat Tounkara waxalaak sa boy yi waxalaak américains yi crédit Sénégal yi da ngay dugg ci taxi fan yi ñu leen yónnee par cinq dollars cinq dollars man de du ma leen nëbb man par cinq euros cinq euros le crédit yi fii saa ma wàcc jënd lu mu dee dee vingt à trente cartes ba fi may chargé conteneur ki may yónneel xaalis ay daf may yërëm ne ma mais booy mën a ko déedéet garaawul on gère carte téléphone yi ngir yàlla carte amigo transfert yi carte transfert home yi gars yi fii ngay jënd tapé code bi tapé numéro waa ji Sénégal mu am 3000 crédits pour ñu continuer combat bi on commence à nous gagner sur les réseaux sociaux on commence à nous sur les réseaux sociaux ndax la këreel partisan bi kii di xuloo kii kii di xuloo kii kii di xuloo kii déedéet ku bëgg xuloo dañ leen bàyyi ba combat bi jeex ñun ñëpp ay góor lañ noo ñu dem dajaloo ñuy dóorante dóorante ñuy waxtaan waxtaan mais li ma leen di ñaan mooy nañ leen récupérer waat combat réseaux sociaux yi ndax élection yi élection digitale lay doon Sonko du génn nekk ci terrain bi wax ak ñun ci code lay wax ak ñun tey dulaan sekk génn na ma jamal jaan dina bind lu rëy lu pota ci interview bi nee na interview bi ci biir prison bi la woon def na ci affaire yi nekk naan non boo xoolee pois bi boo xoolee sikkim bi da ko ñuulal parce que keroog xaw ma kan moo seeti woon Sonko fekk na ko mu bee jaaw ma jàmbal jaan daal dina ñëwaat duul. assemblée nationale ci li ñuy def nii dina amaat beneen député bu duul te man je préfère li ñuy dem defal Karim Wade député Pastef yi yéen tam waroon ngeen déposer recours mais loolu day tax élection bi bloqué te yéen seen yoon nekku si bugg leen bloqué dara bi nag daa bëri façon crédit yi ci xeex bi la bokk. connecté internet bi te ci genre émission Cheikh Yérim sekk bi sànq ma gis da ngay gis 700 commentaires Amadou Ba di saaga sonkoo benn Sonko tontu 1000 saaga ñëwaat ça mois trop énervé ñun ñoo daan gagné ku ne wëpp ñu saaga sa ndey wala kon ñun da ngeen bëgg ne daal waa kër Sonko yi da ngeen saaga rek yéen bëgg dem élection day tax ñun daal da ngeen ñuy écarté quoi dootu leen ñu jàppale ci xeex bi sur le niveau virtuel nañ dem. man yàlla baax na ba armée laa faral man je suis un républicain heureusement bokkuma passif nañ dem on va voir kan kan ay sama crédit sama crédit désormais man désormais sama crédit pour ñuy xeex laa kay jox sama ñi may fayal néeg avec Ousmane Ousmane Sonko ba tey maa ngi koy garanti man sama ñaar ñi ma yore avec boo leen déggee ma ne wëyaay yooyu rek c'est parce que am na ñett ñeent yu yokk fu mu ne wëyaay yooyu am na ñetti ñeent yu yokk dugalal leen booy orange ne wala yéen ngeen am orange money yéen ñi am carte de séjour fii yéen ñi am carte bancaire mais tijji leen orange money di dugalal booy crédit mille francs par jour pour ñuy combat ci rajo yi ci télé yi loolu yëpp si combat bi la bokk mais bu leen foog ni ñun kenn yéen daal bu ñu leen ne xeex rek da ngeen foog ni ñun dañ leen ne wàcc leen ñu dem voté ji lan la nekkul xeex comme ñun lii ñuy def nii di internet di wax chaque jour lan la nekkul xeex gars yi na rafet bi mën na rafet Macky Sall bu demee ba xam ne xoola jeex na wërëb ba dem na këng waaw ah, bu ko neexee tam mu déposé dëkk bi dox ko président assemblée nationale ça ne nous regarde nullement je suis dans une révolution pas une rénovation je regrette gars yi man kuy wax ak man foog nga am xel xeex bi moment yi dootul tali bi tali bi civil yee ko moom yéen ci non tali bi militaire yee ko moom yéen civil yi digital bi tontu ndey patriote yi xoola de ñoom moment bi ñu waree xeex digital la ñuy bëgg a bàyyi digital toog nag ne gañe nañu gañe naa te voté ji woo <laughs> basuma basuma mare jàpp leen su combat bi booy yi génn ci pour sama jeune étudiant yi Ousmane Sonko jàppale leen waaye bul mer bul mer xale yi xam nga rek ay xale lañ mais xale bu ko politiciens yi jiitee manipuler ko mais man booy yooyu xam naa si booy yu bëri yoo xam ne ay patriotes lañ sincèrement booy yu bëri ay patriotes lañ pour les jeunes étudiants yéen je lance un appel solennel les cadres de la Casamance ak yéen képp ku dëkk Casamance booy étudiant leader boobu ngir yàlla wut leen ay contagam yéen waa 77 yéen doomu Casamance yi yéen waa Casa ambition Casa ambition bu Chérif Goudiaby une grande personnalité un grand monsieur dem leen ni ñaan seen groupe boobu def leen bloc suñu doom yi di fanaan si mbedd bi Dakar ngir yàlla ñu fexe leen wutal logement def bloc. jël seen numéro booy chef boobu après on va voir avec lui ce qu'on va faire man jox naa leen sama numéro booy ne kii bi la ñu xamul indice luy indice xaw ma nee na 00 33 6 05 59 96 00 00 33 6 59 non 00 06 05 00 33 6 05 59. 96 00 mooy sama numéro boo yaa ngi ma ci woo mais am na ñoo xam 00 33 bi la ñu xamul woon 6 moo ci topp 05 59 96 00 gars yi réagir leen pour étudiants yi carte crédit yi ñu am orage moo nekk yooyu nañ ci jàpp ñu dugal ci combat bi grand Assane Diouf nga baal ma àq nag mais xam nga rek ay kilifa ma woo pour ma wax yow te man moom sama fans nga dama lay woon ndax yow ab Baay Faal nga ku nangu sa rek nangul naa la kon nag ma tëj tey si jërëjëfe sëñ Bamba barki sëñ Moustapha Saliou barki sëñ Moustapha Saliou barki sëñ Moustapha Saliou Mbàkke Balla ay